Hosanna. Maroc ba dellu daan ah. Saalum ak Kajoor nga def da xus ci biir Cheikh Moussa melooni man eh. sopp naa ku gëm Cheikh Moussa bay tey ma way borom njariñ ah. mën la weesu nay aarem Cheikh Moussa borom jamono ah. ku ñaan magas moo ko ñor dundal lislaam moo ko ñor dundal li fi baayam yi doon topp moo ko ñor dundal li fi maamam doon dox moo ko ñor moo waral détail yu tey kër sëñ Moussa Faye sëñ Moussa sëñ Moussa Gueye euh, nuyoo boobu teg ci loxo Cheikh Moussa Gueye mu ko ci sëñ Saliou bi ak mboolem ñi nga xamante ne bii ñooy bokk yi seq liggéey bi waa koñ bi yi dëkkandoo yi di ña nga xamante ni bi moom nga bokkal ci réew ma ñëpp ñu jël nuyoo boobu di ko teg seen ko mu jàllalee ko ci ñëpp euh, sëriñ baa ngi wax ne euh, Cheikh Moussa sëriñ baa ngi lay nuyu di la jaajëfal di rafetlu saw doxin ndax léegi mi ngi koy seere ci yoon bi ne nit ñi nga xamante ni bii ku ne am nga koy roy ndax góor yi ñu dox sax yaa ngi gis ñuy sol ay jubay dugub yeeg loolu daanaka famille loolu du lu baax waaye ku ku ku nampatalu ci ku mel ni suñu lakram nampatalu ci suñu Moussa lakram nampatalu ci suñu baara ñuy toog fokk nga dox dox yi mu mel ñii ngay mu yoonu mooy nuru nuru ko daa lu leneen yow nag da nuru nuru lu yoon wi bay yoon wi cër ba nga am ci Sëriñ Tuubaa ba Sëñ la Lakram am Serigne Touba cër boobee ca la la tibbal ba nga yorte bay wóote ni ñu di la wuyu wax wax bu liis mooy da nga ne li ma fi jàng ci ay kaamil jàng ko ci ay xasida def ko ci ay salaatu ala am na ku ma tudd ne ma euh, damaa bëgg nga tudde nangam ak nangam nee na nga ne ko déedéet man addiyee Sëñ Abdou Lakram rek laa yor mooy seet na fa mu ko yóbbu sëriñ bi ne laa loolu de moom daa bari wax rek di wax waaye jëru ko ci ma ndax alxuraan moom boo ko see wàcc ci am réew day mel ni waameewu taw ci ci kaw jamono ñëpp lay sottiku ci noonu te si ñëpp la këram moom la yaatale mbir kon si Moussa sëriñ Mubarak moom si ñëpp la këram moom suñu afiya nee na mi ngi rafetlu saw doxin di la xamal ne lii nga nekk bu fekkee da ngaa nekk ci leneen am na ful la am na fayda te jàng na ba dëñëgee te doomi mag la te doomi yoon wi la ab tànkam lu fi jàpp waaye rafetlu saw doxin moo tax tey jii la ko yëg ba mu ko yëgee mu xëtti ànd ak ñun ñii ak délégation bi mu àndal ñëwal la te jëm ni Sëñ Tuubaa ak Sëñ Abdou Lakram tax mu def ndax moom mi nee na dara ñuru ko lu dul liggéeyal Sëñ Abdou Lakram te liggéeyal Sëñ Abdou Lakram mooy liggéeyal Sëñ Aafiya mooy liggéeyal te gis na ne ci buntu kër bi nga nekk te yow dundee woo kër bi da ngaa dundal kër bi Sëñ nee na moo tax kon loo nekk da cay ànd ak yow nee na mi ngi rafetlu ñëpp nan ànd ak yow ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax dane léegi liggéey bi de am naa yaakaar ni dëgg la ndax bu doonte dëgg man du ma fi teg sama tànk kon bu ko dara kooj loolu la wax léegi kon dara kooju ko moo a jotaay bi kon nag nee na mi ngi soññu bokk yi di soññu xarit di soññu wóllëre di leen xamal ne ra aw doxiinam rafetlu na ko ngeen gën koo jàppate jàppale ko te xam ne Sëñ Tuubaa lay liggéeyal ndax Sëñ Abdou Lakram ku koy liggéeyal Sëñ Afiya ngay liggéeyal te Sëñ Afiya Sëñ Tuubaa ko doy loon boppam ba teg ko ci jumaay jaay sëñ Tuubaa amul ku mas na jiite ma kenn ku ngeen dégg coono rek ku sëñ Tuubaa nag nga jiite ko amul waaye sëñ Aafiya dox na ci kanam sëñ Tuubaa ne ci ginnaaw mu jiite ko ay yoon milti milaar ay yoon yoon yoon kon kooko du ku ndaw ku ca bokk taalibe bu ca bokk da war gox boo nekk nga ràññee ko fa ba ñëpp di la bàyyi xel nee na nag rafetlu na saw doxin sant na bu baax a baax mi ngi lay ñaanal ci kàttanu yàlla ak yonte bi Sëriñ Tuubaa ak buntu kër bi ngeen bokk muy Sëriñ Abdou Lakram suñu borom taxawu la teete la ba cër bii nga am ci buntu kër Sëriñ Abdou Lakram cër boobu gën a yokk taalibe yokk mbooloo mi yokk barke bi yokk wërsëg bi yokk ba li nga ci yéen nga am ci lu kawe sa njot ndax na lu ngi loo ci am ci kër gi rek nga ko jëmiwaat jëmali woo ko àll jëmali woo ko fenn ndax loolu ñun ñi bi ñëwee léegi am nañ ci lu mu leer kon sëriñ bi nee na sant na la gërëm na la mi ngi lay gën a dénk fi nga teg sa tànk ci jaamu yàlla ndax bi ñëwee bi mu ne ana jullikaay bi rek da ngaa daal di wékki deer bu rëy lal mu rafet njortu ne yaa ngi jaamu yàlla bi mu ñëwee dalaa fekk ci sa kurus nga yor mu rafet njortu ne yaa ngi jaamu yàlla bi mu ñëwee dalaa fekk ci siraatal mustaqim nga wóote bi sa diine bu toll nii kon nee na fi nga teg sa tànk ba am lii bul ko bàyyee loolu moo yoon nee na mi ngi lay dénk nga gën a góorgóorlu ndax paaka lu mu ñaw ñu ñu gën ko naam dama leen baal a àq te baal leen àq di ñaan pour yàlla boo leen jégal eh, suñu bakaar yi nga xam ne ñoo ko tey def ko yàlla nañ ko yàlla jégal. yàlla nañ yàlla suñu bakaar yi nga xam ne ñàkk xam moo tax ñu def ko yàlla nañ ko yàlla jégal. yàlla nañ yàlla jégal suñu yi nga xam ne saytaan moo ëpp doole ba def ko yàlla nañ ko yàlla jégal. yàlla musal ci lépp luy waral bakkaar barkab Cheikh moom la leen baax kon kaddu yi eh, kaddu ko eh, cant la. ak it nayoo la leen di tey rek dafa yàgg dafa ma yàgg a bëgg dafa ma yàgg a téye dafa ma yàgg a am jikko joo xam ne ji samay kilifa dama damay rus su lu gis ma dama na nga bay nangam ma bokk ci li may sooraale samay mbir suñu dañ koy sóoraale bu baax ndax xam naa bay na ma xel moo tax am na jamono yoo xam ne si dut àlla karam daa ñëw peñewu sama bopp bi dama waaxu wuti ko sama dooma mooy sama mbubb dama peñewu loo de ma ne ko naa jóg dootuma wàññeeku xam nga sëñ sama moom kuy saqal bopp nooy moom waxu ci dara te meeg nag mesaleere peñewu ma sëñ bi ne ma daw wuti ko kon na maam jaa pen na mu ma tee dama mm-hmm. doo peñe sa bopp bi doo ko ci sa bopp bi naa jóg ci sëñ bi dootuma wàññeeku ak ci sëñ bi ne ko nag dootul demee nii moom xam na li ma wax maa ngi sama bopp bi sax ko ñëw mu ne lakk ma ne ko dootul demee nii mu ree xam na li ma wax eh, sëñ Bara dama lay sant ci kanamu njaboot bi yëpp ndax it nit soo ko jàppee xam na ko soo ko soxla it xam na ko man xam naa ne jàpp na su fekkoon damaa bari xaalis sax di ko joxe dañu naan sëñ bi xaalis lañ ko tax a nga xam nga ne yow du ma ne ma joxoon sëriñ waaye nag ci yow fu ma ne fu ma ne nga fekk ma fu ma ne nga fekk ma fa sa gal ma bu baax ci kanam njaboot gi ci kanam yi taalib yi loolu mënu ma ko tey loolu sant la rek laa mën nga xam rek ne noonu fu nekk lañ nekkoon dem nañu te ñaanal ñaanal sëñ Abdoul Karam mooy bés bi sëñ Moustapha la Karam nag moo ma jox digal li wala woon naag sëñ Maxtaan Mbacke ne ko dee fa tey ba du ma cay teg eh. keroog ban fi teewee dama seexal fii ni ku bëgg a tey gis si Moustapha la kanam te gisoo ko soo gisee Cheikh Moussa mi yemal ci moom bu dee looy joxe jox ko bu dee looy wax wax ko ko fii la toogoon wax loolu kon jàpp naa ne ñu ñaanal Mbàkke yéen nga may ñaanal nag Mbàkke waaye mosoo ma ñaanal lu ma gisul ma wax ba noppi si Moustapha wax ko fii eh, noonu rek la demee dax dama amul lu dul yéen mënuma sagoo lu dul yéen mënuma tiital lu dul loolu loolu eh, seen waajur def na ko ci man waaye suuxat ngeen ci lu bari ndax fii dafa xat fii dafa tànn sëñ bi nga xam ne sëñ Basiru sëñ toog ci néeg bii ñu toog ñàkk toog xëpp ñun ma ne ko sëñ bi bu ñu ñëwaatee fii man ma na lan ma ne ko fii ma ne dafa xat ñu ngi ci néeg bi aw ma ventilateur sax ma la fa xoolal nit ñàkk mu ne foo nañu fekk la fa ma tiit lool sëñ Basum sëñ fa billaahi mu ne peut-être ne na nañu fekk la fa daal di toogaat ma jaaxle lool nag ma xam ne kii bëgg na ma sa yàlla tax tax mu bëgg ma it sa waajur a ko def si ma li mooy li weer lu tax mu bëgg ci doomu sëñ Fallou ak su noo yàggee waaye la tax mu jàpp ma dëgg dëgg dëgg dëgg moom sa waajur a ko def si ma te loola it suuxat ngeen ca lu bare bare bare su ngeen ñëwoon fii tey fekk may def leneen ah bu la neexee yëdd ma ci mbooloo bu la neexee ne ma kaay ma gis la ci biir nga ne ma eh bayil nangam bokkul ci yoon wala bokkul ci kese nga affaire sañ nga loolu bu la neexee toroxal ma ci biir mbooloo mi lu tax nga def nangam te kon it jaadu na doxtaani bi toujours toogin sax foo toog jàppal ne sa sëriñ a ngi lay xool ngay toog toogin bu rafet toog toogin bu jekk toog toogin boo xam ne dina yem ndax sa sëriñ léeg-léeg mu toog fi ci waxtaan ak yow ba nga naan ah kii dafa maa xamal dara déedéet ñii dañuy xam luñ leen waxut tey jii bu suñu daara jëloon kay kàddu tey di waxtaan la ma def dem yëpp mën nañ cee waxtaan maanaam xaj na di ma ko ko wala di ma ko ko ak téléphone noonu loolu moom la yàlla def ci ñoom am naa cant ak ngërëm boo xam ne bii dama tàmbalee ci man na mbooloo mi ak njaboot yi ak taaliba yi jëm si ci sa jëm ji na xam naa ne fii tàng na xat na waaye boo fi nangoo toog ak man 15 minutes. والله خمنا نجحنا والله خمناكم لك خمناكم لك waaye am na lu may sakku dama fa yor ay xale yoo xam ne yi gone yu ndaw lañu ay jigéen yor fi ay xale yu góor yoo xam ne ci daara ji fi ñu ngi jàng alxuraan te ñu ngi jàng xasida seen tubaab mun nga ñaanal leen ñu mokkal te sàmm seen cër ndax fi mu ne nii damay jàngloo fi ay jigéen ay xasida ñu ne ma lislaam nanguwul jàngaloo jigéen ma mais moo ma gënal woy yi ci télé bi mu ma gënal woy yi ci télé ndax am na soxna xam ne daan jàngale alxuraan sëñ bi di jàngale lu ne ah, waaw waaw daana toog ñu ñëw ci yonent bi yonent bi ne leen dem leen ci borom malfa bale ñu wax leen seen diine loolu daan am ci temps yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye suñ xale yi tey كرسي نيجي جينا ناوي خاسدة ممكن نجرون بين خاسدة ممكن سفرت أكثر سنة محمود خلي يقول يما أنا الكون كان كرسينا نعم جدنا توقع مم في جيتا دا وقت جينا تمام سن آفيا مم بس جيتا سن تبع جولي كن نو واكر سن آفيا لانو دونو فوي جولي دونو كدقلة دونو توفي كان كيف الدائرة أمني وحنا نسيخ بين جيتا جولي ما نسين ما نروح على جولي ما ندمارو ستي xale bi tey ne sama jawrin bi nekk Arafat dem bu beneen dëkk ñu ne ko kuy sasari mu ne Seex bu Saani naa yow dëkkaay doxal ñu jul jiite ñu ñu julli mu ne yàgg mënut a julli duñ ko wax dara man la ñuy wax man la jox boppam ah, ah? moo tax boo ne seen ñi nga xam ne sukk nañu jébalu bi kii ay jiite julli fi semaine ba ca topp keneen ëllëg a tax nga dem benn affaire ñu ne kuy sasari nga ne Seex Moussa mu ne kaay nu barkeel sëñ Moussa ku baax la kaay jiite ñu la wax dara man mi la yar te nga jox ma sa bopp la muy wax. wax naa rus loolu. rawatina nag ñun waa kër sëñ Afia xam ne rek a daan jiite sëñ Tuubaa julli comme mënu góorgóorlu ci julli des na saxas def moo tax kon loolu su doonatoon dëgg ci man du ma ko wax ci kanamu julli kon du ma ko wax mu mën naa ne cel wala ma wax beneen diis ko waaye njaboot gi ma yàlla booleel fii. góor ñi ak jigéen ñi ku ci ñemee faatu waxtu am ñu ngi jàpp ñu ngi julli ñu ngi muur seen i cër ñu ngi maandu ñu ngi xeex ak seen lameñ bu mag lameñ dafa am benn buur dafa ne tusu ndawal li gën ci ndawal laa bëgg a reere suba mu dem marché jël lameñ di toggal ko te suba sax mu ne ko ndawal li gën a bon ci ndawal laa bëgg a reere mu dem jëndaat lameñ di toggal ko mu ne ko kaar bi ak tusu ñeen di ñëw mu ne yow barki dem dama la ne ndawal li gën ci ndawal laa bëgg a def nga jënd lameñ toggal ma mu ne ko waaw lu ma la waxoon dem ndawal li gën a bon ci ndawal nga jëndaat lameñ mu ne ko waaw lameñ ay jàng alxuraan luy saaga du lameñ luy rambaaj du lameñ luy jëw du lameñ lameñ ay addis lameñ ay jàng xasida yi kon kéew aadama bu ne loo mën a def xeexal ak sa lameñ balaa génn ay bañ lañ ko keppe keppaat ko ak i tuñ su xesee gën rek dabaat ko defat bu yomb lii may wax su nekk noonu dégg si man mun naa xaar ba sëñ bi dem mën naa leen waaye kaay leen def ak ñoom discours kenn du ma ne waxoo dégg samay taalibe rek kenn ma ne waxoo dégg mu wax lu ma neex waaye li tax may fit wax ko ci kanamu sëñ bi ci loolu laay dund ci loolu laa leen yàlla leen wax dëgg yàlla rek tax ngeen daan seen doole tey lekk lu leew su ngeen ko defee day kiriyaas danaan ñoo rek ngeen jàkkaarloog sëñ Tuubaa waaye soo xamante ne boo toogee sama kanam rus ngaa def lii rus ngaa wax lii boo weytee def ko bay ci ko boobu mu baara mii de lu ma rus wax ci kanamam wallaay su ma weytee du ma ko wax maa nga xam ne saytaan yi mën na ma nax ba max ndax saytaan yi dafee ne di yàq di jaxase lu dëgg waaye nag tànk maa ngi ànd ak sama sago rus naa mukk nga gis ma naa ma seer Moussa bay na la benn loolu nga ma daaloon si Moustapha Lakara ma nuyu ko peñe woo sama doomu ma xet ni ma kaay peñe woo kaay parce que si Moustapha bëgg ma ne ko xas naa départ jëm ci seen loolu lépp a ma ci formé teewaay bi ñu teew fii ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa ñu yàgg fee teewaay at yu bëree bëri te daje see ngërëmul Serigne Touba ñu ngi ñaanal Serigne Cheikh Sidil Makhtar yàlla suñu borom àggale ak yéeneem mu ànd ak gudd fan lool barke Serigne Fall Cheikh Moussa Serigne bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax mi ngi lay sant bu baax mi ngi lay sant bu baax a baax mi ngi lay gërëm mi ngi am cofeel bu wér jëmale ko sa jëmb bi yëg-yëg bi nga am ci moom nga jël bis bi nga xam ne amoo lul moom at mu nekk nga ko ko nee naa xam na ay xat-xat ay xew-xew yu xew-xew yu bari moo tax yëg si wu fi kon moom moo fi teewal boppam kon nag nee na sëñ baa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bu baax a baax ci jëf kii nga xam ne Serigne Touba rek moo tax nga koy def te di ko jaale sa bunt sa Serigne Touba. muy sëñ Abdoulaye Karam yàlla na nga ci euh, dajeeg ngërëmu sëñ Touba ak mboolem ñu ko àndal ñëpp nga xam na nii rek la nee na ñun amuñu ku dul sëñ mooy suñu lépp fii ak fële ñu jëm mu ne fekkee ne yàlla dalaa jaarale ci dund. muy sëñ Abdou Lahad u karam muy bunt bu ma def nii dina jëme ci sëriñ bi nga sàkkal ko bis di ko ci liggéeyal kon ñu ngi lay ñaanal nga am ci ngërëm bu baax a baax nee bi ñu dénk ñu dong yëpp ñu góorgóorluwaat takkaat suñu laxasaay yokk suñu pasteef gën a sellal suñu jaayanteeg Serigne Touba tàmmuñu kenn waruñoo xool fenn. waruñoo xool fenn. waruñoo jëm fen lu ñu ci sëriñ bi rek. sëriñ bi noppi na ci ñun ba noppi. ñun ñoo ko deseel wante moom deseeluñu dara. kon nañ leen gën a góor góorgóorlu bu baax a baax. te gën a topp ndigalu sëriñ bi. ndigalu sëriñ bi nag mooy ndigalu suñu borom. fonk jaamu yàlla bu baax. te di ko sellal bu wér. te fas que yéene jëf ab yiw di jëf ab yiw di ko wax di ko wax di ko dox di def lu baax te mooy su safaan ba mais loolu la ñu sëñ bi digal tegu ci yoon yoonu salaatal mustaqim ñu lu ci baax buñ ci góorgóorlu bu baax dinañ am ngërëmul sëriñ bi te xam ne sëriñ Tuubaa kat bëggul ci ñun dara lu dul ñu tegu ci aw yoon ndax kat jëf na jëf na ay nit gis ko bind na bàyyi fi njabootam gi gis nañ dañ daan doxe muy doxal bu sell mu tegu ci sariya ak xeexa ah, dara yàqu kon ñun ñi nga xam ne ñun ñoom ci bàyyi ñi dongo yi bu ñu juumee rek wala ñu jàdd yoon rek dañoo neex wante sëñ Tuubaa rëjal nañu yoon wi kon yoon woowu nag buñ ko wàcc buñ ko wàcc ndax foofu la ñu war a jaar dëkk boo gis nee na ab dëkk boo gis am na yoon wu fa jëm bu ñu jaaree ci yoon wa dañ yegg ci sëriñ bi bu ñu jàddee rek dañuy réer du ñu gis sëriñ bi mukk kon nañ leen gën a góorlu bu baax a baax te jàpp ci sëriñ Tuubaa te bëgg ko te gën di ko bëgg te fonk ko te bañ koo yemaleeg dara te xam ne sëñ bi rek a fi nekk dara nekku fi sëñ Tuubaa rek a fi nekk te dimbali ñu wér a dimbali saayir ak di dimbali baatin suñu xel yi dal na suñu xel yi sedd na kenn warul ko loolu sëriñ Tuubaa kon nañ gën a góorlu ci moom bu baax a baax sëñ Moussa sëriñ bi nee na sant na la bu baax a baax jëf ju mel nii ak jataay mel nii war nay am bu baax a baax wante nag nañ ci moytu seytaane dafa bari doole te fi muy dugg bari na te duñ ko bàyyi xel ndax bari na jataay yoo xam ne dañ cay woo dañ cay woote ci tudd sëriñ bi fekk sëriñ bi yoonam newut ndax sëriñ bi bépp jataay boo xam ne boo fa toogee sa xel du dem ci sëriñ Touba du dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dem ci suñu borom nee na jataay boobu sëriñ Touba newut nee na sëñ Tuubaa musta génn lool kon nag yàlla musal ci seytaane sëñ bi amoon na lu ma xool ne woon na iblis de wax na ak man nee na ko jéem naa ci yow ba sonn mënuma ci yow dara ma jéem say njaboot ba sonn mënuma ci ñoom dara wante bu ëllëgee naa sàkk njaboot sa njaboot kon nag nekk xam na ku nekk xam na ku nekk xam na ne am na ñuy tuddoo sëriñ bi jotuloo sëriñ bi dara loolu nag ku nekk kenn ku ne sa xol nga ko war a xool ni nga koy xoolee sa xol mooy da ngay xool ba xam ndax li sëriñ bi bëgg yaa nga ci ndax li sëriñ bi doon doxe yaa ngi cay jëm dara li sëñ ba bëgg ndax yaa ngi ciy jëm dara kon nag loolu mooy yoon bi nga xam ne moom la sëñ bëgg ci ñun loolu rek na bëggoon bëggul ci ñun ay caaxaan bëggul ci ñun ay po li mu ci ñun mooy tegu ci yoonu saraatu mustaqima kon sëñ baa ngi si sonn bu baax a baax a baax ñu gën a góorgóorlu gën a raxasaat suñu xol def ci sëriñ Touba képp te bañ see dugal dara xol bu sëriñ Touba nekk say seytaane da koy daw kon nag ñu gën a góorgóorlu daal sëñ Moussa sëñ ñu ngi lay bu baax a baax ndax li ci njëkk ndax nit ku nekk li nga yëg rek nga am li nga yëg weesuwul lu gën a rëy ci yow lu gën a neex ci yow at mu jot nga ne ko laa ko dippee kon nee na loolu dara gënu ko rafet kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay sa liggéey bii ngay liggéeyal Sëñ Tuubaa yàlla na nga ci am gërëmul sëriñ bi te yàlla bu seytaane booleeg ñi fi ñëw ñi fi teew ñëpp mbooloo mi fi ñëw ñëpp ak ñi fi teew yëpp ak ñi fi am yéene teew yàlla na suñu borom jéggal seen bakkaar yu njëkk ak seen bakkaar mujj defal leen tawfeex te leen aar leen jàngoro fi waay indi. yal na ko suñu borom saafara ko ci barke Cheikh Mamadou Fadel ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp. bés bii bi ma koy tàmbalee di ko tuddi sëñ Bass am na ñu wax lu ne ma dem toog sëñ Bass ba mu nekk si tool ndax jamono yi am nañu daan wax lu ne di wax lu ne xam nga moom mooy ji rek léeg-léeg ñu jaaxase léeg-léeg ñu wax lu baax waaye man dama dib sare lépp lu mën a dama sare maa damay sama soxla kanam bés bi léegi may ndam ko jàngu alxuraan mm-hmm. ah? di ñaanal si na la këram waaye si sama lameñ na xam nga loolu lu ma làq ah ma bàyyi noonu rek man li ma ne duma ko def ma booleel moom bëggal ko sama bopp ñu gaare oto fii xam nga bari nay xeer ñu toog si fii ci bantare bi bantalater nekk fa nekk bi tàng jër ma ne ko si bi bu ñu ñëwaati fii mu ne ma tax ma ne ko fii daa tàng yow ma ventilateur bu ma la taalal mu ne bu mel ni def ni bëri toogaat ne foo ne ma fekk la fa foo ne ma fekk la fa ko defe sax ma ne li wax da daa baaxul daal li ma wax da def naa rek sax daf maa bëggal boppam te yàlla tax kon dañ koy ñaanal yàlla ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla guddal fan yàlla ci ram bés bi suñu Abdou Karim Mbacké képp lañ ci ñaanal alxuraan diñ ci jàng sëñ Abdoulaye Karam lañ ci ñaanal xasida yiñ ci jàng sëñ Abdoulaye Karam lañu ñaanal ñaar ñi gëj a gise ba daje fi addee sëñ Abdoulaye Karam te lii wax naa ko sëñ Bass nangul na ma ko wax naa ko sëñ Moustapha la Karam nangul na ko kon des man sama yoon nekkatu ca ñoom nangul nañ ma lii kenn ku ci nekk ne ma maay sëñ Moustapha sëñ Moustapha mooy man sëñ Moustapha toog toog ki bi ne ma ah, da ngaa xamul ne Bass ay man maay Bass te gisee ko sama xel gën a dal ndax ñaari kilifa yooyu su ma waxee damay dëggati ci gànnaaw si bi sama yoon bi ma ci si Moustapha Lakaram mooy sama sëriñ suñ basay sama soppe wax naa ko ci rajo wax ko ci télévision wax ko ci daayira kon du lu ma nekk wax ko samay bokk wax ko samay dëkkandoom gis boobu yàllaa koy def yàllaa ma bëgg loo si bas te loolu nekkul lu may nëbb samay bokk xam nañ ko samay dëkkandoo xam nañ koy samay xarit xam nañ ko dégg ngi lay sant bu baax yow mi nga xam ne ak mu ne ba a nga dik toog fii rangoor we xataay wi xooloo am na ci li fay ñëw yow mu xat ñu naan danoo yàkkamti wàcc na fa dem wala fii noonu nga toog feeg moom